les mbokki internet yi suivre à travers suñu chaîne YouTube Diobass Info TV Facebook Twitter Instagram ak Telegram tey jii di ajuma fukki fan ci weeru novembre 2023 xibaaru nawetaan ñu dem falé ci programme ci walu zone 11 euh, B bu Tasset mais dinañ dem falé aussi ci zone 1 Ouakam bu parmi ñom ñu wara a door li nga xamante moy sen carte quart de finale. kon donc ñu ngi fàttali ñi nga xamante ni abonné guñ suñu chaîne yi nañu abonné suñu chaîne YouTube bi bos cloche de notification bi leen di yeggaat ni ñoom am nañu vidéo waaw bu ko defee dañu dem fële ci zone onze b bu taset xamu ne ñoom tàmbali woon nañu seen quart de finale championnat national populaire premier quart finale nag joué nañ ko diggante ASC Nagoy Mbut la woon bu taset séeréer ak ASC Ceneba ASC Thiénaba nag moo ko mujjoon daan ci deuxième quart de finale bi moo doon dox euh, diggante li nga xamante ne mooy ASC Bari Jam bu Tasset Olof ak ASC Gandul bu Sipan boobu dañ ko doxaloon troisième quart de finale la ñu jëm samedi bi te mbongo fukki fan ak benn ci weeru novembre ASC Renaissance. bu taseet euh, olof mooy dajeek ak kii di ASC Bokk Jom bu Doyin ASC Bokk Jom nag xam ngeen ni moom presque euh, génnoon na ci pom mi ginnaaw bu ñu fubale phase de poule euh, waaye nag dafa daan kii di ASC daan ci wàllu papier ci réserve daal la ko daane loolu moo ko may qualification war a jouer li nga xamante ne mooy troisième quart de bi foofu ci stade municipal bu taseet bu ko defee ñu continuer nag le douze di dimanche ñu war a li nga xamante ni mu nekk quatrième quart de final euh, sol onze b bu taset euh, championnat bi war dox euh, diggante ki nga xamante ni mooy ASC Mbour Fodj ak ki di ASC Kër Mangaar yi Marché retard bi nag euh, moy deuxième quart de finale bi ñu koy jouer altine fukki fan ak ñett novembre 2023 mille vingt trois foofu ca stade municipal bu Tasset AIC Gandoul bu sipal ak ASC Bari Jam bu taseet olo bu ko defee rek ñu mëna a ci quart de finale yi ñuy xaar su litige am donc pour ñu évacuer ko ñu mëna dem ci li nga xamante moy demi-finale championnat national populaire de la zone 11 b Tassel. waaw xam naa rek buñ fa jógee rek dañuy dem fële ci zone 1 on camp bu parmi ñu eh, fekk ya Antoine Cissé ci wàllu programme ñoo tamit dafa mel ni dañuy waaj a tàmbale li nga xamante ni mooy seen quart de championnat national populaire 2023 Antoine. asalaamaaleykum Ousmane ñu ñëw rek ci li nga xamante ne mooy programme bi gannaaw bi ñu defee benn gën a joyantiwaat préparé li nga xamante ne mooy quart de finale yi ci samedi bi le 11 euh, novembre dina ñu am li nga xamante ne mooy premier quart de finale fii ci zone un Omgam ñu koy joué ci baax mi bii nag euh, match dina dox ci diggante ASC sa ak ASC Ndamol bu Sange euh, dina nekk ci terrain bi nga xamante ne mooy terrain dajale bu ñu ñëwee nag ci dimanche 12 bi benen quart de demi quart de finale waaw dina am ci digënté ASC Xelkom bu sangé ak ASC Bibiram toujours rek ci li nga xamante moy euh, terrain dajalé euh, bi nekk fële ca Ngolfani euh, di ñaan rek lepp jexi jam ci ñaan fair play di woote supporter yépp ñu tew ànd ak fair play kon Ousmane loolu la leen amalon fi ci li nga xamante moy programme ci zone 1 Ongam fi ci pax mi waa zone onze tamit euh, ñoom ñu ngi ci woon xam naa euh, bu ñuy jotee moo de rek euh, dina leen digtaan ni nga xamante ni mooy mooy programme bu fa am ci weekend bi su fekkente ne weekend bi ñoom dinañ ay jongante dina fa am ci zone onze bu aneen donc bu defee rek xanaa ñu leen di dox njëriñ incha allah suba ak jàmm samedi incha allah ci beneen numéro xibaaru nawetaan